mbokk yi jërë ngeen jëf euh, tey nag dafa am lu ma bëgg ñu waxtaane ko tabaarakallaahu am na sunu génn góor gu ñu fi fekk euh, gis ngeen karo bu ñuul boobu nekk ci ëttu kër Cheikh Seydi Aboubacar si borom bonekaar bi moom laa bëgg tey ñu wax ñu lan moo ko fi indi parce que dañoo gis karo yëpp maron la ñu def ci benn karo bu ñuul kese loolu nag dinaay gis nit ñi di jóge fu ne di ñëw di am yu ñu fiy def waaye bëgg nañu xam exactement lan moo waral karo bi am na suñu génn góor gu ñu fekk incha allahu rabi dañuy dem demander ko rek laaj ko mu wax ñu exactement lan moo waral karo bi parce que karo baa ngi noonu euh, te ci biir ëtt bi la nekk li waral lépp nekk marron moom mu nekk noir xam naa ni ñàkkul ni am na lu ko waral dañuy ànd déglu suñu góor gi mu wax ñu lan la suñu sama sëriñ dama bëgg rek nga wax ñu karo bu ñuul bi lan moo koy. waaw jërëjëf alaaji ah karo bi de bi ñu koy def fii la ñu fekk ndax fii yow umpale dafa nekkoon gannus boo xam ni bii. bu bari moo nekkoon fii ci ëtt bi ñu daan ko tame di ko tuuri mais mu gi dafa amoon ay fel fel yi nag sax am na kiraama bu ci feeñoon ndaxte demoon nañ ba di ko jiiñ Mohamed cinq xam nga ko bu baax ñaan moo fi indi fel yi waaye li ko kii mooy bu altine talaata ba dimanche boo ñëwee boo fi toogee yow fel yi dañ lay kii da ngay fëggutu fel topp la waaye billaay alaaji gis nga bu dimanche man xam nga yàgg naa fii di laal ay basang bu ñu lalee basang yi ba kaar yi gaare ba nit ñi ñëw ba toog doo gis ku wokkutu doo gis ku fëggutu fel yi day mel ni dañoo disparaître tous les dimanches mais bu dimanche bi passé boo fi toogee yow lal sa sajaada da ngay fëggutu daw ñoom Pathé Diop mii nga doon waxal léegi ak ñooñu dañ daan wax Mohamed Senk fi indi fel yi mu ngi koy kaas mais bu nit ñi ñëwee fel du am waaye li tax ñu def ko karo yi mooy xooxu sidéem yi daan am ak dànq yeek salte yooyu dañ daan woo xale yi kër soxna Daba ak soxna Kala bu altine wala talaata dañ daan yendu fii di ko tame gannaaw gi nag xam nga sa góor gu tedd gi sëñ Abdoul Aziz mu ni waay fii daal dëgg dëgg dëgg coono bi li ci am nañ ko karo benn yoon ñu jël karo xalifa kan yi moo woy kalarër bi wax ak moom wax sëñ Abdou ni ko nangam la koy karale mu wax ko mu jënd karo yi mu won ko mu rafet mu ne ay yi baax na waa ji bi muy karale moo karale ba ñëw ba ci digg bi mu ni comme nee nañu Serigne Babacar fii lañ ko dencoo fii lañ ko teg jullee ko damay def karo bu ñuul fii ci ci digg bi mais waxu ko Serigne Abdou karo bi Serigne Babacar fekkewu ko moo tax dafa mandargaal rek ñi fii mooy digg ëtt bi donc c'est pas une pierre précieuse waaw ndax Serigne Cheikh nee na bi ñu wàccee fii di ñëw fekk ñu déjà mbooloo mi ñëw ñu bari nag dañu wax mais mag ñi nga xam ne dañ la koy nëbbu xam nañu ni bi ñu wàccee du exactement fii ci digg karo ci ëtt bi la mais xam nga am na loo xam ni secret ëtt kër la am na ci koñ bi fii nii foo xam ni man mag mi mu ko wax fekke ko nee na ma T45 bi ñu taxawaloon arrière ko pour kenn du jaar ci kanamu néew bi ba ñuy teg mais bi ñu wàccee fii la njëkk a taxaw ak Serigne Cheikh ak ñoom Serigne Mansour donc mais li ñu bëgg a wax rek mooy ku fi dugg foo taxaw ci ëtt bi surtout ci karo bi am na ñoo xam ne bu ñëwee ci bitu xànjar bee la ñuy yem li Serigne Moustapha di wax raay ko rek mu doy leen ku ci nekke nag ak li la doy waaye karo bi c'est pas une pierre précieuse boo xam ne bii Serigne Abdou doo ko santane wala ñu di Serigne karo ko yore woon bi mu demee ñu teg ko fi déedéet day mandargaal digg ëtt bi ëtt bii ñu ni woon Serigne Babacar la moo tax boo duggee ci ëtt bi rek di talibe Cheikh foo taxaw mais leet boo gisee koy wax dafay gis ñu ñëw di ci julli di ko sujjóot ko kii déedéet tarixa bi ëpp na loolu ruu sëñ Babacar mi ngi fi foo ci taxaw boo ko ñaanee rek mu fekk la fa boo duggee ci ëtt bi rek dugg nga fi ñu ko tëraloon jullee ko. jërëjëf léegi waaw léegi aussi boo dugg see salle bii escalier yii ne la wóor ni sa maam si jaar na ci ba sonn escalier yii xale yi taxaw fii la daan wàcce kii la daan wàcce bu ñëwee meebu def nii yëkkati banque ñaari loxoom sëgg xool ci suuf mag yëpp jóg mu dugg fii la mag yi daan toog kii mooy saal bi nga xam ni sa maam Babacar Si bu mosaan wàcc mag ñi fii lañ koy xaar bu fekkee bi su ziar général la fii am na benn bunt bunt ngi fi nii buntu bii dañ koy ubbi am na beneen buntu parallèle bu nekkee ne dañ koy ubbi mag ñi bu ñu wàccee gaar ba fële la ñuy jóge rang bu ñu rangee ñëw rang nii mag ñi nag dañ discipliné woon kenn du ki su ko defee rang fii ba mu jàgg ca gaar ba bu wàccee ñëw toog fii alaaji kurdu yu gay mooy taxaw nii jël benn mbub takk ci ndigali su ko defee góor gi tàllal loxoom moom moo koy di dooleel bu loo ñëw boo ko joxee mu jox kurdu yi mu def ci biir nga jàll sama moroom ñëw ziar bu dee ziar général wala gàmmu wala yooyu bu fekkee nag bis la boo xam ni bii du bisu ziar général bu mag ñi ñëwee toog di ko xaar bu wàccee kanape bi moo ko jëndoon ci alal yi boppam lii changé nañ ko mais lii kenn changé bu ko dénk bi sa góor gu tedd gi sëñ Abdoul Aziz keroog ba ñu àndee mu jóge ci jumaa ji muy bisu tabaski bam bu mujj bi du xalifa ña nga ma ni mbaa indi nga caabi saal bi ma ne ko waaw mun ma demal ubbi ko ndax góor gi mënatu la dox bi ñu wàccee fii la toog moom sëriñam moom sëriñam fii la mujj toog ci dundam ma toog nii ah, Malick Cissé ñoom toog nii ñoom sëñ Cheikh bu sëñ Mansour ak ñi ñu àndaloon ñoom Pape Cissé toog nii ak ñoom Khalifa Niang ak Mawo bi ñu toogee ba mu jàgg mu ni ma madun ma ni ko ah, mu ni ma waaw nañ dem nag ñu ma yéeg ndax ngeen dem rey seen xar yi xalifa ñaa ngi ma lu mu wax man ko nee nañu dem bi mu yegg see bëgg a jóg mënul a jóg dañoo toogaat def na ko ñetti yoon door a mën a jóg xalifa ñang ak xale yi door ak Malick Cissé ñoo ko soutenir yéegal ko bi mu yéegee wàccaatul ba dem barsax Allahu akbar Pape bi ñu ko indee fii dañ ma ni ubbil saal bi ma ni lan la ñun ne ma fii lañ koy defare bi may ubbil saal bi laloon nañ fi basang basang baa nga ne ci suuf dañoo lal basang bi rek fii lañ ko tëraloon moom fii saal bi lañ ko defare moom moom eh, Pape Malick si ah, ci saal bi door ko yóbbu donc fi moo tax saal bi mais bu fekkee dañ la ko jox ni leen nañu fexe ba ndeysaan bu mu poussière bu mu dara bu gan yi ñëwee man ko ziar am ku leen mën a ubbil soo demee taxaw fee di ko wax day mel ni dafa am loo cay wut moo tax duñ ko wax kenn mais ku yàlla baaxee ba nga dugg si fii dugg nga fi nga xam ne mooy ruu Serigne Babacar fi mu génne àddina fii nag am na ñu fi ñëw léegi di ñaanu dama leen ni ñun li ñuy wax ci ñaan gi amul solo xam nga loom solo mooy béréb bi ñu koy ñaanee ak ki ñu koy teg ci loxoom fii ku fi dugg jaxasoo nga ak ruu Serigne Babacar si loolu rek leen la ci woon ah sa góor gu tedd ga moo daan taxaw fii bàyyi ah, Ali Fatim Mbuub di ko jottali moom mu toog nii su toogee di wax di wax ba waxtu wi jot nag loo montre poche bi lay génne bu ko xoolee rek waxtu wi jot rek mu ne ah weewu gar dëgg na weewu janaab kon nag ñu waajali waxtu wi ñëpp tàllal mu daal di ñaan ñaanam ñu sedd bu ñaanee ba pare nag nii la daan def mbubb daf koy wokk banque loxo yi def nii sëñ Babacar musula dox di wàcce ay loxoom wala muy muy ci déedéet man gis naa ko ci saal bi mu toog fii sama waajur indi ma may dugg école cinquante 1952 51 52 bi ma ñëwee moo ma woo ma ñëw toog nii mu yëkkati ma teg ma ci koom ata booba am naa sept de dindi deux cent francs may ma ko ci salle bi booba ba léegi nag ñu ngi fi ngir yàlla ak jëm ni sëriñ Abdou Incha allah